wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ khadim yow mi sunu dom sunu rakk yabal la fi sëñ Modou moom Cheikh Abdou Lahad ngeen yàgg fee ñëw ñu di def ci ay fàttali lu jëm ci mbiri sëñ Touba ak ci mbiri màggal gi ak njabot sëñ Touba yi fi jitu yep di sunu waju gi kenn ku ci ngeen fi def ci ren jii nag mu sàkkuwaatoon ñu defaat fàttali ci gu mag yi Euh, nan la ko sëñ Abdou Lahad daan waajale ak nu mu ci daan soññee ak nu mu ci daan taxawe bu njëkk bi mooy moom nam ca daan da caa waxoon lu ñëpp dégg mooy dafa soññe woon màggal gi xam xamle sababu màggal gi nettali ko fàttali rek lañuy def ca la mu waxoon dafa waxoon ni sëñ ci boppam bi muy def litikaaf ci yi Daaru Xudus rasulullahi sallallahu alayhi wa feeñu yaxasatan laam manaaman jëxëran jàkkaarloog moom bi mu jàkkaarloog moom nag rasulullahi sallallahu alayhi feeñu ko nag ànd waa ahlu badri ba mu àndeeg waa ahlu badri nag sëriñ bi nag bi mu gisee waa ahlu badri jàkkaarloog ñoom garaat yi leen suñu borom ràng mu teg ci bëtam defatul dara lu muy bëgg a bokk ci waa ahlu badrin googu nag mu jàkkaarloog yonent bi nag xamal ko ne ko bokk ci ñi nga àndal rek la bëgg yonente bi salaatu alayhi wa xamal ko ne ko ñii nag bokk ci ñoom wees na deret lañu ñu tuuroon te ta tuur ta tuur deret wees na kon bokk ñoom moom daanaka mënut a am li la mën a dimbalee nag mooy yow am nga ci man cofeel goo xam ni cofeel gi nëbbuwut gu ni fàngale ñëpp di ci teg bët waaye nag doona koo xut bu samaan ndax xut bu samaan dee su ko doon te amoo ñeent fukki at ñetti weeral la te am ñeent fukki at kon mën naa laa tëbal ñetti weer yooyu def la bis ni ki tey ngay xut bu samaan ngir cofeel bi nga am ci man sëriñ bi ko samab gis jël na loolu bokk ci ñi rek laa soxla mu ni ko ñii nag la ciy tax a bokk dafay doon lu diis loo xam dañ la koy teg te doo ci am kenn la ci dimbali ci lenn nga yenu ko baagale ko loolay tax nga bokk ci ñii nag mu daal koy xamal fa saasa nag ne ko li may nett nag waxi sëñ Abdou Lahad la mu daal koy xamal fa saasa nag ne ko roog yi moom sàkkuma ko bay xam lu muy attan ak lu mu dul attan waaye su ko roogee attanee daal sama jom dekku na ko ma ne nag bismillah dëkk bi it koy génn ndax am na sa waajuru fi nekk wax ne mi ngi ñaan di jëmale si yow te lépp lu muy ñaan muy di ko jëmale si suñu borom da koy nangu feeg mi ngi ñaan di jëmale si yow bi du ak si sa kaw muy sëñ Bousso bi ñu daal dem tuuti rek sëñ Bousso bi wàccu liggéey sëñ bi xam nag ni kon natt bi lee mu daal di agsi mu jóge fii nag dem Mbacke Bari ba mu jógee fii dem Mbacke Bari Jolof gi nga gis ni fekk ci ci sababu sayir bi tubaab yi bind nañ ko ay bataaxel yi bataaxel boo xam ne benn agsi wut ci moom. bi ñu yónnee bataaxel bi bi nga xam ne moo agsi ci moom nag mu woolu Cerno Birahim ba mu ñëw ni ko ñëwal dem ca ca ca ca tubaab ya wujj leen ba xam lu ñuy wax. Cerno Birahim jóge fii nag ci ni ko sëñ Abdou Lahad nettalee sëñ Omar ñaan bu nguñu ñaan moo ko joxu fas ni ko waxuma la tëlee waaye tërëf sax du ko def yafalum ñetti at ci nekk maam Thierno war fas woowee nag ñu boole ko ku pël ngir mu woon ko yoon wi maa nag pël ba ba ci biir gajj bi pël ba réer ko maam Thierno deful lu may wàcc fas wa rek mu fétal ba jant bi ne singeen nag mu àgg ndar janoog tubaab bi ni leen sëriñ bi ma yabal ñu ne ko yow de gëm nañ ne ci moom ba bàyyi ko waaye bin nañ ko ay leetar yi leetar yi leetar di ko wolu te moom dikkut léegi nag yabal nañ espèces ya koy jàppi bind nañ ko ay leetar ak maam Thierno xamal leen ni leen benn lettre boo xam ne mas ngeen ko bindu mu agsi ci maam day amut ñu ne ko yow day gëm nañ ni fa moom nga bàyyi ko waaye nag ñi ngi def télégramme ci waxtu bii nga agsee fu leen sunu télégramme fekk ñu taxaw foofa ba waxtu wa del si ca ëllëg sa bu dikkul nag ñu jàppe ko ñu def télégramme nag sëriñ bi nag fekk waaj na ba jekk maam Thierno wàññeeku nag di di si Mbàkke Bari di fekk si sëriñ bi ba mu fekk na sëriñ bi jël na bagage yëpp ba génne ko ci ci kees ku njëkk dem ba ca buntu këru Mbàkke Bari googu mu taxaw fa ba mu fa taxawee nag simila ak saala nag maam Thierno agsi na sëñ bi wàññeekuwaat nag di bëgg a duggaat ci biir kër gi ba ba demee ba teg tànkam da dafa daal di wëlbit ni laa ilaaha illallah sunu borom xamal na ma ni sëg dugg ci kër gi aram na ba noppi ma di ko def ni wëlbit taxaw ci buntu kër gi maam Thierno agsi ba mag see tàmbali koo nettu yoonam nettali yoonam fa mu tàmbalee di wax rek mu ne ko Thierno mu ne ko Mbacke mu ko bul ma yàggal ba nga taxawee ca Louga ci janjub detti mber di wax ak caddoy tubaab yi xorondoom yi doon see tànk maa ngi jàkkaarloo damay liggéey rek téyel ma sama njaboot gi ci biir Sénégal ak foo leen mën a téye dox seen diggante ak tumuraanke ba ma dem ba delsi daal di jël gaal gi def ci loxoom roof ko jël geneen gaal gi def ko ci loxoom roof ko daal di bismillah daal di yéeg ca fas wa daal ndar loolu mooy bu yoon wa ba mu ñëwee ndar nag dem ñu yóbbu ko ci tënk rek ndax dafay gudd ñu teg ko natt yu diis yoo xam ne jéggi na dayo yonente bi salaatu alayhi salaam nag xamal ko ne ko natt yi li muy bari bari nag la ma la ca mën a dimbalee mooy lépp luy bëgg accident la nangama ngi ñëw su ma la nee nangama ngi ñëw nag na la wër noppi naa ca mu daal di koy danginu nag rek jóge foofee nag ak fi ñu ko jaarale ak li ñu ko def ak natt yi ñu ko teg ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñu ko ne ko nag ba mu amee juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer nag yonent bi xamal ko ne ko nag liggéey bi moom mat na lala taxoon a jóg nag waxaaleesu ko lala taxoon a jóg nag waxaaleesu ko liggéey bi mat na li ci des nag moom fay la li ko dalee tey bii nag ba ba saa taxaw fo bis bu del seetee ci kaw suuf daañu la fay fay goo xam ne fay gaay raw liggéey bi nga liggéeyoon ba noppi yonente bi nag ci sant gu mu sant sëriñ bi ma daal di koy xamal nag ni ko jëlee naa liggéey bi nga def waaye maa ngi la ciy dolli ndolleen loo xam ni kër yi waa banoo Israël gi nga jamonoon teel seen kër yi àjjana yëpp may naa la ko ndax doomu aadama ju ne sunu borom da ko sàkkal kërug àjjana ak kërug sawara bu jëfee lu ko yóbbu ci kërug sawara nga dem ca bu jëfee lu jëm ci kërug àjjana nga dem ca ñoom nag seen këri àjjana yooyu lañ ca a jëf ba mu tàbbal leen ca jëfuñu ko kon may naa la ko sëriñ bi ni ko defaat naa ko addiya mu ko nangu naa ko ci biir nangu gi lépp lu yoolub addiya waxuma laa ju doy ni ji am nga ko ci waaye man nag dara du dul jóge ci man di dir ci man sëriñ ni ko kon nag damaa bëgg nga téye ko bañ àgg ci bis bu mujj su boobaa kuñ ca dimbali nga xam dañ la caa dimbali kenn du ko nattable waaye ñi ma yaakaar di wéy samay ndigal samay tere ñu koy bay dëkk ci kër àjjana goo xam ne taxuñu woon ñu xaroo ko loolu rus naa ko jomb loolu lépp ci teraangay Sëñ ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak rek mu ne ko nag li ko dalee bisub tey bii ba ba saati taxaw fu bis bi del seetee ci àddina fay ga ma la fay gi ñu la fayoon des na la fay fay gu ko fukkam loolu nag mooy sababas ba mu ñëwee nag mu woolu Sëñ Balla Fari Jeng sëñ Balla Fally Dieng la woolu ba mu ñëw mu ne ko mu yëkk fekk sëñ bi daawul laal loxo ci xaalis mu jël lu ma ñetti téeméeri dërëm ci ngordu ca jamono jooja jal ko fi barab boo sëñ Balla Fally Dieng ba mu ñëw mu ne ko fabal lii jëndi ko kafe ak suukar ak yeneen ya ca mën a ànd dugg ci mbedd njaareem yëpp mbedd moo sof ba fa mu yem nga sof ma ca des koo taseel jox ko te bu ci wër seen ndax li ma suñ borom defal sama cantuk bopp lottu na ci bis ni ki tey mangi nyan ngi ñaan ko képp koo xam sama mbik sa mbik la fu mu la fekati ci kaw suuf lo man nga defal mako ci sant li yalla liko dalé ci ganaar ba ci gëlem lool moy magal gi tay seigne Balla Fall Dieng liko joko jëkk a ci kaw suuf te ni la ko ko di dox seigne Abdou Lahad nak naka jek bam togu jotaay seigne tubaab bi mosu ko yemale dara ndax mom dara wax ni ñaari wër yi di luma ci nit sant ci aduna suma ko mané dara ko def muy wëru magal weeru koor ñaar yi lu ma ci nit wax ci àddina rek su ma ko bàyyi daa ko def moom nag nam ko daa defee ci jamonoom nag bi mu toogee ci jataayu sëñ Tuubaa bi gannaaw teraanga yinga nga xam daana ko def fépp ba noppi nag ci kërug boppam gi tey jii ñi xam ñëpp daraan fekke xam na ni soo masaa jaar ci tëli bi jëm Mbàkke jàkkaarloo këram gi fi ñuy rayee nag yi ab naaf lay doon boo xam da ngay seen ndawal ga ca ca kaw miir ba mu tiim ko noonu la daa magal màggal ko magi gannaaw ba mu defee teraanga yi mu def fépp noppi nag ci biir kër gu boppam lépp mus musta nangoo denc dara dara dara lépp Sëñ Tuubaa ko daan def ndax daraa wax ni Sëñ Tuubaa la gël ko daa yomb am defal ma ci la am defal ma ci nag nee na war naa yomb te nee na boo seetee li nga war a liggéeyal sëriñ bi lépp wet goo ko seete ba jàpp ni wet gii ci a mën a liggéeyal Sëñ sëñ bi la ko jox kon nag xaw ma ci weesu bakkoog sa bopp rek <laughs> loolee loolee la sëñ waxoon ci màggalu Tuubaa gi waxoon ci ci làmmiñam ni màggal gi mooy suñu feetu indépendance waxaati ni ñuy dagg paas di ñu fekk si ci biir dëkk bi ñoom ñoom ñu ne yam képp danoo am tawféex yi dëkk ak Sëñ ñoom ñu dagg paas di ñu fekk si waaye li ñuy sàkku rek moom la ñuy sàkku kon ku jóg jëm si ci dëkk bi war na doon dox sa diggante ku tumuranke ci lépp ba nga mel ni yaa ngi sa biir kër loolu mooy lim daan soññee ci màggal gi sëñ Xaadim ñu fàttali leen ko kon di nekk beneen bi ngay war a waxaat fàttali googu. Hmm. gis nañu it euh, jamono ji hmm. am na laat hmm. ci màggal bi. ay taxawaayam mun naan def ci màggal gi ak yu mel noonu. dëgg la tudd ci ay kilifa euh, it. boo xam kàddu yooyu ñoo so moo ci am ñu doon sàkku leeral. xamee suñ euh, mën a leeral ak loolu li ngay wax yëg naa ko ci fan yu ñu weesu loolu it ca tool ya la ma fekk ba ma ñëwee jéego ya ma ci war a dox dox naa ko ca. ya ko jiitu woon it jéego ya ma ci war a dox doxoon naa ko ci ndax sëñ Abdou Lahad dafay jëmm joo xam ni eh, sëñ Tuba sunu borom la soob li mu ko defal mu defal ko ko mu doon koo xam ni jëmmi sëñ Tuba ci boppam defal ko loo xam ni tam moom da daan sant sunu borom tabaraka wa taala danaa wax ni dama man damaa sant yàlla li ma sant yàlla ci wàll yëpp nag genn ma ci gën a ñor mooy ni ma defal sama xol bi nga xam da koo foofu jël sëñ Tuba duy ko ci ba mu fees dell mu kaste ko dara raxu ko loolu laa sant yàlla. kooku mooy si Abdou Lahad moom nag déggoon naa ci ay wax fan yii nga ko waxee ba tudd ci tur nii si la Baye Fall moom mu ci wax lam ca wax xëy na li nga ma ko laajee tax ma di ci wax ne la ma ci war a def def naa ko ci moom ba mu waxee lam wax lu leer la dafa wax ni Sëñ Abdou Lahad di ay jaar-jaaram ak aku doxinam warees na ko mën a bindi liifar ku fi nekk ñu jox la ko tey jii nga di ko nga nga di ko tegtaloo loolu dëgg gu wér a la goo xam ne kii jëkk koo wax Moustapha Cissé Pire bokkul ci tariixa murit kilifa la kilifa ak diine la bi mu ñëwee fii màggalu Sëñ lan la waxoon daf ni Modou Mamour Amar wax naa leen waxi Sëñ Abdou Lahad dee koy teg guddeeg bëccëg daa waxam du ràpp du màggat te it jullit bu ne mën na cee jëriñu giir dundam am na ñoo xam ne seen jëmmay dem waaye seeni jëf ak seeni wax du fi du fi jóg ba ba àdduna tukki yëg naa ci yu bari nag ba ca menace yañ def ci moom yëg naa ko mom joko na ma ak lañ ca wara wax wax kep ko ci dig ci àddina mu di ko ca mën ka wax ñak djublu Sëñ Abdou Lahad la kep la Sëñ Lahad nag ñàkk jublu moom la ci seigne touba rek lañuy wax ci mom yar do nga koy waral dara xetam bañ la xen xen wala niko yalla melal neexu la yaar lu jor ciow xulu amu ci ndax mom dara ko ñoron dafa waxon ni man fek ma jonoog seigne touba mu geureum ma ci liggey bama ko liggey lo rek ma ñor ku andi seg taalibe nag ma téyal la ko ku ci rax leneen nag yaaxal a xam moom ci pas-pas la doon dox suñ tubaa ko ñoroon musu wutal doomam dara mu wutal kenn dara léppam da ko fab jox ko suñ tubaa da jax ca takk li ko yàlla may nag nga xam ne may na ko ci dara suñ tubaa nga xam ne si tey dëkk bii nu nekk muy dëkk suñ tubaa bii nu bokk tey foofu mën a taxaw ci addina boo gesoo ni ma loolu jëfi suñu borom la jox ne moo ko may képp kum naqar nag ci naqar ngay dëkk ci naqar ngay dëkk boo xam naqar naqar wudul mën a saafarawu la li nga xam nag duñ ko nangu mukk nag jóge jóge na fi jëf fi ju rafet te walla tax ci ban la si ne xutiloo fii sabilillahi amwaatan ba noppi nag gannaawam nag pexe yu nit mën a jógaat pour suul jëfi Sëñ Abdou Lahad du suulu mukk waaye dañ ci am loo xam nag nun duñ ko nangu te nun ay mag lan fekke nañ fi lu bari xam fi lu bari soo ba baxli umar yi maa la yu bayin mën nañoo bañ a wax waaye dara umpunu mbir mii ñuy songe waajoo judee dara warul ko ludul li li li li Moussa Ka waxoon maam Cheikh Anta rek amaana kuy ndokk yu bi tax baaraam ba te xam ni yaa <laughs> canal ndayam baayam ba ku génne woon jëfi Sëñ Abdu Lahat taxaw di ko attaqué génne jëfi Sëñ Abdu Lahat ak ko taxawaayam ci ñoom te lépp xam nañ ko danañ suturaal nag duñ tudd ay tur waaye bu delloo ñaar nag danañ tudd ci tur yi Sëñ Abdu Lahat ku ñuy wormaal la ku ñuy sàmm la ku ñuy roy la ku ñuy téye ba fawu la loolu na ko ñëpp xamandoo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa видим.